xalaatu grand théâtre point tv ñu ngi leen di xaraat bu baaxa baax di leen wax na ñu ngi ci lamb ji nga xamni ni nii petit production moo ñu fi wo nee naa leen kooku moom mooy promoteur nan tay soo na xool na promoteur nan tay su su wote dañuy def ni rek def baax ki fi jaar nak xam ngeen ko muy njóngu kolaban daal di champion bi mo fi jaar muy forza de rico ko bëgg bu baax a baax waaye nag di leen wax ni ka lamb ji tay du yomb ki wote nak mom moy petit production mu def lo xamni nak lu doy war la bo la ñaari espoir ki nga xamni ni mom moy xéru ngor ak boy yëmbal lamb la jo xamni ni lamb ju doy war lay don gis ngeen ambiance xalé ñi nga ambiance mbër yaa ngi ni di waji ñew beure fi lay xewé si grand théâtre point tv sama gaay ay ca ñu dem ma wan leen mbëri nu ñuy préparé bir ci mi gaay ci échauffement yi si biir gàllaaj yi ay ca bodu 100 pour cent lay don ñu ñu dëkk verte après du doy war ay ca pouba gis ngeen xalé ngi nonu di soti gàllaaj yi ndam rek ndam rek sigil wa grand Dakar bisteri asalem Bentali. dama génn waa Bentali Grand Dakar ñaari tali kenn desul loolu yëg tey bi nga génnee. mbégte te dama leen ko war dama leen ko war a fay si kanam incha allah dama war a am ndam incha allah. parce que Mbaye Dièye xam na li may xaar ci làmb xam na li may xaar bu baax loo tax ndam rek moo ma arrangé te yal na ma yàlla may ndam. ani gars yi. gars nii. na gars yi jóg yëngu ma fi yaa baa ngi xale yi noonu. gone gi na xaar ñaari tali benn tali gi noonu ànd ak nga xam ne moom mooy Mbaye Dièye nee naa Badou mën ko naam mu ne ma tey ndam rek moom arrangé xale yaa noonu mais lii lay def supporter yëpp jóg lii lu lay def. ndam rek ndam rek daan rek bëre daan. parce que xam nga loo laaj. tey xam li mooy bëre ndam dañoo war am ndam ñu dañu bokk si làmb. ñun fii du suñ place dañu war a bëre grand komba dañoo bokk si lamb incha allah. saa waay bu ma yaa nga dégg léegi léegi nee na dañoo bokk si lamb na dañoo war a bëre grand combat xale yi nag gis nga li nga xam ne nii loolu la ñuy def moo tax seen lamb day metti lu tax muy metti mooy dañuy mobiliser xoolal xale yi nga xam ne ni tey mbër mee tax lekkuñu mbër mee tax naanuñu ñu bàyyi seen yëpp ñëw moo tax nee na ma ba du tey ndam rek ñu dem xool adversaire am lu mu waajalee. buuba jekki jële ngi war na waajal borom foofee rek ménage rek gis nga ah. jafe ñala fo beere lan fo beere menacer rek sa javisé soulager sala wala yàlla wal doomu parcelle bi sala wala wala yàlla waaji nee na tey fii waaji nee na tey dina bëri di nga xeex jëlal ma lii ani supporter yi bu bëree daal bu xeexee ñaax jëlal ma lii ani supporter yi naka la jóg ñu ngi nii gaa ngi nii hey jërë ngi noonu supporter yi jékki jël yaa ngi noonu ndeysaan gaa ngi noonu nekk si ginnaaw jékki jël doomu parcelle bi ndeysaan sama doom day suma rax ama ñu boole suñuy moom li waaw boole suñuy nit ñëw pour supporter ñu tey yaa ma gën a xam mais lu lamb ji laaj. waaw lu mu laaj rek incha allah. waa ñu ne dara may di nga bëri joxe. indi rek lu mu indi rek mooy loolu. waaw lu mu indi rek kon tey di yokk pare nañ fépp. waaw rek seen ménage fa bëre. xam nga lamb ji lu ma waaw bu baax a baax ci defar laa jógee. incha allah te damaa ne sama yoon da nga xale bi lu mu nee na guddi guddi parcelle xale bi liggéey na bi pare na ñu dem xool ji ay ca sama gaay 아, waaye ki xam ne moom mooy Xeeru Ngor numéro 2 waaye ngi nii gis nañ laa gis foo ne. waaw ñun ñu ngi nii rek nekk si entraînement yi. dëgg laa tey géej gi da ngaa récupéré ak si géej gi bàyyi nga làmb ji. waaw mais ñun si géej gi lañ dëkk daanaka sax fa la ñuy yeewoo fa la ñuy defee la fa la ñuy entraînement yi aussi waaw. ren mën nañ xaar sa làmb. ah mais pourquoi pas fi mu toll nii ñu ngi am combat bu ñuy waxaale sax si lañ nekk nii. waa Ngor dañ maa yóbbu dañ nañ nama lañ la. waaw man maa leen raw fuuf fi mu toll nii moom ni ma taawee nii sax ëllëg tey nga indi sa poulain. non tey moom xool moo sedd fi mu toll nii mënaguma wax tant que defarul waa ji affaire. 1 0 lañ nekk 2 0 lañ bëgg a jëm fi mu toll nii dañuy bàyyi ba deuxième bi mu dugg rek. gars yi nag sa góos góos may leen ko. gars yi loxo lañ góos gi. laay laay la laa xeeru ngor a ngi nii. góos tuuraat bi beneen affaire la. waaye ndax ki nga xam ne nii moom mooy turandoom am na ko. turandoom a ngi nii. xeeru ngor. nag lay siyaare loo yëg tey. sant yàlla bu baax a baax a baax. sant yàlla bu wér ñaan yàlla dafa ma sutura barke Seydina Mohamed. tey lamb ji lu mu laaj nga ñëw waa Ngor yëpp génn sa turandoo ñëw sa gaayab ñëw loo yëg tey. ndam laay ñaan suñu borom am na ko yomb na ko yal na ma ko defal yal ma yàlla defal ndam suturaal ma ndax gars yi nañ si trop tamit sonn naa si combat bi trop te damaa war a dem Ngor maa yaakaar li yaakaar damaa war a dem. xam nga ne lamb ji laaj. il est l'heure. xam nga ne lamb ji xale bi nee na nañ dem xalaat rek seeram arbitre baa ngi noonu sifflé na diggante Diéguy Sirar ak ki nga xam ne nii moom mooy ndaamal parcelle bi xale bi ndaanaan la mooy teg jël ñu ngi xeex ñoom ñaar teg jël jéggi siraat teg jël door na jàpp na ko daan na koy taxawal daan na ko laa ilaaha illallaah teg jël door na ko jàpp ko taxawal ko daan ko jéggi siraat bërewul xeexul oxo lamb bañ diggante réparé ak yankaw ma dend sama yaay Fatim maa ngi lay siyaar. maa ngi lay delloo siyaar. mais mais noo gisee ñaari xale yi ñu ngi. na waaw arbitre sifflé na ñu ngi léewtoo. te yankaaw ak réparé numéro 2. ñaari xale yi dañoo xas-xas loo. réparé door na newoon na ma dinaa ko duma. waaw cokkaas na léegi de. yankaaw mi ngi koy waaye Yankaw nag baraket la sànni na góos léegi cey di lam sama yaay Fadi Ñang maa ngi koy siyaare bu baax a baax moom laa àndal tey ci làmb ji burgéwal la doon àndal burgéwal xaw a jàpp tey mu na badukaay sama doom nga ñu pelloo làmb ji <laughs> waaw ñaari mbëri de ngi leew too kur dalagul xam nga nag dañoo xaw a tolloo ah Yankaw cokkaas na Yankaw moo ngem moo ngem lu weex li takk ci morso bu xonq uh-huh. moo ñu woon ginnaaw moo ñu woon ginnaaw réparé moom la ñu jàkkaar lool ñu ngi xeex mais réparé mel na ni rakku Marley la ah réparé mel na ni rakk la ci Marley ah rakk ah, kon rakkam la la Marley ngi si ginnaaw di woote oh koy jur wallaay mbokk koy jur réparé song na ko Yankaw bal na ko di dóor plaqué la ko war na ko ndax da daan kanam déet war na ko ndombo luy xew luy xew réparé yang yankaaw yankaaw daxay daanam déet réparé bañ na yang yankaaw bëgg na koo jébalu loo ay ji lamb mi ngi door mi ngi door mi ngi door mi ngi door mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi na ko dafa ay ci làmb ah daan na ko duma na ko daan waaye réparé il a du mérite Yankaw duma na réparé daan na ko ci xale bi xale bi ndaanaan la nee na xool ngeen waxoon naa leen duma dinaa ko daan loo jàngatee bëre xale yi. waaw bëre bu bëre bu metti waaye xam nga mbër buñ la xasee wër ndombo ba ba nga jekkani mu leer la ni daanu rek moom moo la des jébbalul benn yoon moom moo gën lii. réparé ngi noonu mi ngi jégalu ay supporter am na maa ngi jégalu réparé ngi noonu di def geste bi nga xam ne nii geste bu noble la. Ndeysaan réparé ngi noonu yëkkati la loxoom oh, oh, oh Ndeysaan li mooy lamb li mooy jeexee jeex na. waaye jeex na soo koy dégg li moo tax réparé def na geste bu na yankaw kay lan la le retour de Bafal bi le retour de Bafal bi Bafal dafa retouraat ngeen taxaw mu ne dina la tumat na la daan nga ne ko si biir lay xawee billaay Bafal dafa retouraat amul wax ah. foo jëm am ñu topp suñ ginnaaw foo jëm ñu nekk ay xale suñ jógee mbooloo topp suñ ginnaaw wax war nañu jëf rek ñu war li ci kanam Paa lañ wax le retour de Paa Fall foo jëm ak xoo soxla ñaari mbeur yaangi ngi ci bir geew gi arbitre bi di wax ak ñom li lamb nangok li lamb bañ nyom, ma len di ko wax daf len seeni gella ba ngeen ñom wax len li lamb nangok li lamb bañ suma sifle na ngeen suma sifle na ngeen bayante ci lamb man maître du terrain amul dor ci los amul wex amul ngad pare nga neno ko coach gal neno ko parengo nga Xeeru Ngor numéro 2 sunu càmmoñ Boy yembal sunu ndeyjoor tey jii samedi 21 décembre 2019 Petit Production woo fi bisu espoir yi nga xamni ni tar ka la bis bi taaru na diggante Xeeru Ngor numéro 2 ak Boy yembal xeeru ngor mi mbaa jël na turandoom légui mu lèr ñu ngi non di leewtoo ñam ñaar cey ji sama waji ji maa ngi ko ci siyaare njóogu kolobaan li ma sang sel tarkal la dama dugg see sat bi ñep di ciow kenn du ndogu borom kolobaan sama waajaa ngi non ma ngi lay bu baaxa baax booy yëmbal xeeru ngor ñaari mbar yaa ngi leewtoo ñu ngi def round d'observation booy yëmbal sunu càmmoñ xeeru ngor sunu ndeyjoor ñu ngi leewtoo booy yëmbal sànni na droite léegi xeeru ngor mépp sànni ñu ngi leewtoo lama jadi diggante ndaamal ak jol sonk na ko sonk na ko sonk na ko takk na ko xeeru ngor takk na ko ge boo yëmbal génnaat na si croisé na loxo yi cey ji lamb boo yëmbal li ngay def na wóor la bis fi jale ku ba war ta jël dina doy waar ñu ngi ñaar dafa doon sonk saa bu ko remplacé méb la ci suuf door ko crochet mais booy yëmbal mi saay-saay la ah xale bi yëpp saay-saay la cey ji xale bi saay-saay la peut la bi noo gisee ñaari xale yi waaye san bi doy na war xeer ngoon numéro 2 sànq lamb ji lu mu def na ko parce que na bu na ko tegal sees lamb ji jeex mais boo yëmbal daa doy waar ah. waaw boo yëmbal boo gisee mbër bu tey la daanaka lu muy léetowee nii di nga xam ne kii mbër bu tey la boo tax xeetu ngoon na def nànk waaw parce que lamb bi daanaka ku si daan la mën mu la yóbbu la yóbbu la Petit wax mi nga xam ne nii moom mooy doomu ndey Petit Production lamb jaa ngi ñaari mbër léetoo ba tey diggante boo ak nga xam ne ni moom mooy xeeru ngor numéro 2 boo yëmbal moo yor ngembulu vert li xeeru moo yor ñu ngi di xex ay boy yamba sa sa sa yóotu yi soo deful naa ko soo ko dina doy waar dina Petit Lamine waaw dina doy war dina doy war Badou instant ni way xol xer Ngor ni 2 de mo ra jexal lamb ji loolu ngay gis waaw parce que instant ni way xol ay moromam beure eh, na ñom tay bay nañ ko fi comme ku ci melni ay ñom Papa Yadda comme mom boy xol dafa war a jël responsable dem dem beure xaw am dara mais bu dé mais mais mais ki nga xam mooy boo yëmbal dafa teey instant yi bu dafa teey bu deful ndànk tamit booy bi mun na ko juumloo. boo yëmbal daanaan la. mi ngi mën a fële xale bi. maa ngi ciy dend ak la grand doyen Iba Ngari maa ngi koy siyaare sunu papa kenn du moom. ñu ngi lewtoo ba tey ñaari mbër yëpp teg ndeyjoor. di lewtoo. boo yëmbal sànni na droite léegi. waa lamb ji du yomb parce que ñoom ñaar ñëpp bi mooy seen premier grand combat Petit Lamine bi mooy seen premier grand combat ku si daan na dina fu sori di nga dem bëree ñi nga xamante ñoo nekk ni nga xam di nga dem foofu noonu bëree ñooñu huitième division loolu la Petit Lamine wax gars yi nag yeggagoo leen première division huitième liggéey leen ba ci kanam waaye nag ñu ñooy téye lamb ji ëllëg ñu ngi leetoo ñaari mbëri ku nekk da indi mbooloo moo waral ñu tëgg leen grand combat. waaw ay waay le 24 décembre grand théâtre ah la grand théâtre bi la ñëpp di xaar. ah. Xeeru Ngor na droite léegi. mi ngi koy mépp. ñu na léegi. dooraat na ko saa yu song na ko. boo yëmbal song na léegi. boo yëmbal fu ñu la jàpp ba ba doo génn caxabal nañ ko. na nañ ko. daan nañ boo yëmbal. wala Boy Yeumbeul moo daan arbitre lu xew arbitre lu xew arbitre lu xew arbitre ku daan arbitre ku daan arbitre na leen kaay leen si biir géew gi na ñëpp génn arbitre nee na leen kaay leen ci biir géew gi arbitre nee na leen kaay ci biir géew gi na ñëpp génn arbit nee na leen génn leen siyaar naa la arbitre nee na leen dem génn arbitre ku daan arbitre ku daan arbitre sifle waat na lamb ji arbitre waat na lamb ji ngor booy yëmbal après danañ xooli VAR ba Lamine. waaw foo ñu leeral VAR bi. VAR bi nag dana leer si Kina Théâtre TV. te instant dafa jot lamb ji am li nga xamante mooy di xanaa dafa jot CNG dafa war a jug si loolu noonu ñuy tegal ak li nga xamante mooy at eh, kii nii eh, benn écran boo xamante VAR bi lay signifié da am caméra spéciale boo xamante pour VAR la lamb war na toll foofu badu songal doon nañu waaw daw na jël ko mu dóor na ko mbaa du ko dóor mu daan laa ilaha illallah watti na ko mu bañ daa mën a bëre booy yëpp